ca guddi. yalla xamna na ne ya may wax. yalla xamna na ne wax. jàppoon naa ne tergeser coba, ko nettali coba. jàppoon naa du ko nettali sax. mu gis Touba. mu gis Touba. muy lu lu ma am tamuy lu neew lo xamantene ni ah, def nako lu neew lu makoy gis ci gënt nee lu neew lu ngoy gis ci gënt mu indi ak qasida mu indi ak qasida jox mako jox koko bi mu koy jox dafa jël ni nee na waaye bi mu ko koy jox nii la def ak course daal di téye xasida gi nii. mu dem bay jàpp xasida gi rek. mu dem bay jàpp xasida gi rek. daal di yeewu daal di yeewu. bi ma yeewoo. bi mu yeewoo. ko muy dara. jàppewu ko muy dara. ma xëy suba toog. mu xëy suba toog. ci bi ma sama néeg fi ma dal. nee mu toog ki buntu néeg bi fi mu dal. ku ñuy wax xaadim Njaay. ku ñuy wax xaadim Njaay. dana ma dégg. dana ko dégg. waa kaso ba danañ ma dégg. waa ko dégg. nettaliwuma ko gént. ne nettaliwu ko gént. xamantewul ak moom waxu ko dara. mu dem jëlee fee ak mu dem jële fee xasaayit. andi ko andi xasaayit gi ba ci sama ba ci man. andi xasaayit gi ba ci moom. daal di ma koy joxoñ. daal di koy joxoñ. bi ma koy joxoñ mi da doon wérd ni ni sëñ Touba téye woon kurus gi démb. ne bi ko koy joxit da doon wérd ni sëriñ Touba téye woon kurus gi. noonu la lonki kurusam nii. noonu la xaadim lonkee kurus gi nii. am sëñ bi xoolal loolu. daal di ne ko am sëriñ bi xoolal loolu. xaadim te ku tudd xaadim la ne te ne te xaadim ma ko jox xaadim Njaay la tudd xaadim Njaay la tudd dëkk njaarim mu daa ma daal di tijj xasida gi mu tijj xasida gi daal di mooy xasida waj xal jami sax bi ahbab bi loolu bayit la noo ko déggandoo li xayri kullu baabi wala yahab bil mujtabal muasami sahaadatan tasxabu masnal maxtami waj xal ma biiti wa maqili saaha مقبولة إلى المجيه ساها وفك سجني برسول راها واجعل حياتي فرحا وراها كلية كمل عاجلا بالكامل ونجني من جملة البلابل ولتكفني أعداء ولتهاجي لرجحي لأهل بمعامل وليهب كل رداء وصل ونجني من كل سوء بوصل هب لي كوني أبدا سا بصرى واستقامة بجاه بصرى xasida googu musuma koo gis musuma koo dégg loolu ñun ñëpp ñoo ko déggandoo ci kaso bi laa ko njëkk a gisee nee na loolu ci kaso bi la ko njëkk a déggee xaw ma woon ne xasida googu am na te xamutan ne xasida googu am na bi ma ko liiree ma gis wa fukka sijni bi rasuli raaha mu sëñ tubaa di ci ñaan ci mbirum kaso ma dem ci tarjumaan gi ne sëñ tubaa di ci ñaan ci mbirum kaso mu dem ca tarjumaan ja dellu ci tarjumaanu téere bi gis sëñ tubaa bind ne gis sëriñ tubaa bind ne xasida gii xasida ku koy jàng ku koy jàng duggoo kaso te duggoo kaso doo dugg kaso doo dugg kaso ku dugg kaso ku dugg kaso ko dee jàng soo ko dee jàng di nga génn ci kaso bi di nga génn ci kaso bi ci rek ci saasa rek affaire bi def ma xaal nag. affaire bi def ko aal. nettaliwu ma ko sax xaadim moom. nettaliwu ko sax xaadim moom ba tey. fii may wax yow nettaliwu ma ko. ba fii tey nettaliwu ko kenn. am na suñ meneen magum murit moo xam ne taalib sëriñ Saliou Touré la. moo xam ne taalib sëriñ Saliou Touré la. nettali naa ko. nettali nag ko. mu ma kon ba yeboo fonk xasida. mu jël xasida di ko jàng. ñeen fukki yoon ñeen fukki yoon. bis bu ne bis ko ca samedi boobee di la diis. tàmbali ko ca samedi ba la diis di ko jàng di ko jàng ba le 10 ba le euh, ba le 17 ba le 19 juillet. ne mu di ko jàng ba le 19 juillet. muy ñeen fukki fan la yi ma am muy ñeen fukki fan yi ma am ak xasida gi. ci la taal télé bi. ci la taal télé bi. seen ñu ne sëñ Baara Ndiaye. seen ñu ne sëriñ Baara Ndiaye. bi dana ko déglu. juge bi dana ko déglu. bu bu altine. bu altine. moo xam ne bis bi ma amee ñeen fukki fan. ne bis bi ma amee ñeen fukki fan. ba ma demee wuy ji juge bi. ba demee wuy ji juge bi. Hmm. mu génne mu génne aw kayit. mu génne aw kayit. waaw le 19 juin juillet googu daal. la la le 19 boobu daal. mooy waaw wax moom la sëñ Touba ñëw ci Touba sax. nee na moom la sëñ Touba ñëw Touba sax. am taalibe moo xam ne. nee na am na meneen mbokkum taalibe moo xam ne. dama ne woon naa la ko wax ci suuf. danoon naa ko wax ci suuf. ndax bañ a ragal wax lu jëm ci politique. ndax bañ a ragal wax lu jëm ci politique. fii ci sa kanam. fii ci sa kanam. ndax politique moom. ndax politique moom. day loo xam ne daa xaw a sew day loo xam ne daa xaw a sew waaye sama mbokkum taalibe la waaye mbokkum taalibeem la te bu ma ñëwee fii ba fii te bu ñëwee ba fii muy bara barabum ñaan muy barabum ñaan ma wax ba dem ma wax ba dem te lu ma ko njëkkit te lu ma ko njëkkit wax dëgg yàlla sama conscience du wax dëgg yàlla conscience dañ du dal du dal muy Ousmane Sonko muy Ousmane Sonko yàlla dañoo boole wëlëre yàlla da leen boole ñu di wëlëre mu wóolu ma lool mu wóolu ko lool ci baatinam ci baatinam ak ci saahiram ak ci saahiram te maa moom itam te ñoom ñaari ñoo bokkoon benn saal. ñoo bokkoon benn saal. foofu ca réanimation. ca réanimation. waaw xam naa nag ma fa ba tey moom. nee na ma nga fa ba tey. man di ko ñaanal. mu di ko ñaanal. nga ñaanal ko. nga ñaanal ko. ci alxuraan ak xasida yii nga xam ne. ñu ngi jolli fii ñu ngi jolli fi ba tey ak barkeb sëriñ Touba bi fi nekk ak bi nga bi nga sañ a bi nekk fii bi nekk fii te nga sañ cee def lu la neex nga sañ cee def la neex nga ñaanalal nu ko nga ñaanalal nu ko mu génn ci xat-xat yi mu nekk mu ci xat yi mu nekk dellu ci njabootam dellu ci njabootam salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Abdou Samad ne noo ngi koy ñaanal baax ñaan gi ab julit war a ñaanal mbokkub julitam ñoo ngi koy ñaanal ñaan gi ab dëkkandoo war ñaanal mbokkum dëkkandoom loolee mu nekk kenn yéene wu ko sun borom mi nga xam ne moo dogal mu dugg fa noo ngi ñaan mu jële ko fa nu mu gën a gaawe ci darajaay Serigne Touba waaye Serigne Abdou Samad ne mi ngi seeraloo ñëpp ne Serigne Mouhamadul Muntaxa mii ku yëg ak ku yëgul lu mu war a wax mi ngi koy wax lu mu war a def mi ngi koy def mënta tëj nag mënta tijji ndax loolu nekkul ci loxoom ñaan ak wax képp la man ku defee ne ñaana lu la deful intervention ne def na li mu war a def lépp wax naa ñi mu war a waxal ñëpp. fii ci sa kanam. ndax politique moom. ndax politique moom. day loo xam ne daa xaw a sew. day loo xam ne daa xaw a sew. waaye sama mbokkum taalibe la. waaye mbokkum taalibeem la. te bu ma ñëwee fii ba fii. te bu ñëwee ba fii. muy barabum ñaan. muy barabum ñaan. ma wax ba dem. ma wax ba dem. ñaana ñaanalu ma ko njëkkit. te lu ma ko njëkkit. wax dëgg yàlla sama conscience du dañ. wax dëgg yàlla conscience du dañ. du dal du dal. muy usman Sonko. muy Ousmane Sonko. yàlla dañoo boole wëllëre. yàlla dale na boole ñu di wëllëre. mu wóolu ma lool mu wóolu ko lool. ci baatinam ci baatinam. ak ci saahiram ak ci saahiram. te maa ngi moom itam. te ñoom ñaari ñoo bokkoon benn saal. ñoo bokkoon benn saal. foofu ca réanimation. ca réanimation. waaw xam naa nag ma fa ba tey moom. nee na ma nga fa ba tey. man diko ñaanal mu diko ñaanal nga ñaanal ko nga ñaanal ko ci alquran ak ci alquran ak yi nga xamne ñi ngi jolli fi ñi ngi jolli fu boobu ba tey ak barkeb serigne Touba bi fi nek ak barkeb sëriñ Touba bi nga bi nga saña tubu bi nek fi bi nek fi ta nga sañ cee def lu neex nga sañ cee def lu neex nga ñaanalal nu ko nga ñaanalal nu ko mu genn ci xat-xat yi mu nekk mu génn ci xat-xat yi mu nekk dellu ci njabotam delu ci njabotam assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah serigne Abdou Samad ne noo koy ñaanal bax ñaan gi ab julit war a ñaanal mbokkub julitam ñoo ngi koy ñaanal ñaan gi ab dëkkandoo war a ñaanal mbokkum dëkkandoom loolee mu ne kenn yéene wu ko sun borom mi nga xam ne moo dogal mu dugg fa noo ngi ñaan mu jële ko fa nu mu gën a gaawe ci darajaay Serigne Touba waaye Serigne Abdou Samad ne mi ngi seeraloo ñëpp ne Serigne Mouhamadul Muntaxa mii ku yëg ak ku yëgul lu mu war a wax mi ngi koy wax lu mu war a def mi ngi koy def mënta tëj nag mënta tijji ndax loolu nekkul ci loxoom ñaan ak wax képp la man ku defee ne ñaana lu la deful intervention ne def na li mu war a def lépp wax naa ak ñi mu war a waxal ñëpp